Thiam. ay ci ñu resté ak yow ci actualité du jour tey loo indi. <laughs> ajaratu tey nag euh, dañu waxtaanee euh, chamblement bi am ci magistrature bi rawatina nag kooru greffier yi ñu seetlu seetlulee nag euh, garde des Sceaux ministre de la justice Ismaïla Madior Fall dafa jël ab arrêté bu nga xamante ne ni lu toll ci soixante greffier daf leen di daal di def affectation ñu gën ci ràññeek nag ki nga xamante ne ni moo di Ngagne Demba moom nag responsable. la ci Pastef moom nag moo ngi nekkoon fii ci tribunal grande instance hors classe de Dakar moom nag dañ ko daal di affecté fële ca Matam ñeen ñi nag ni wax ne génn bi mu génnoon après conférence de presse bu ministre yi doon def moom nag dafa daal di génn def contre-pied ki nga xamante ni nii moo di ministre de la justice suñu seetlu keneen tamit fële ca Ceeskaay di responsable Pastef muy Ousmane Diagne nekk suñu maire Thiès Ouest moom itam dafa nekkoon fële nga moo di Tivaouane nekk fa chef greffe mais moom nag dañ ko limogé foofu noonu daal di ko indiwaat Thiès kaay def ko greffier simple mu nekk ay mbir yoo xamante ni yu doy waar la demoon nañ ci mbedd bi xool yi ñi nga xamante ne ñu ñoo di askan bi laaj leen seen xalaat ñu dem dellu si waat. waaw waaw loolu loolu kay punition la xam nga donc euh, Ngagne Demba su waxee ni Sonko di ah, dañu barricade këram donc kenn amul accès kenn mënu fa dem moom en tant que juge ah su waxee loolu c'est parce que xam na loolu du yoon waaw mi ngi noonu nag donc loolu moo tax ñu affecte ko xam nga loolu punition la. ñun dañoo nekk dans un état de droit état de droit rek su ci nekkee soo nekkee dans les fonctions dans les fonctions publiques fu fu la affecté fenn da nga war a dem sans aucune fekkee bëggloo nag naa ka démissionné. loolu injustice la. donc vraiment injustice bi mi ngi commencé ci kaw mais ci kaw bu jubul si suuf mënul jub ñoom li ñuy bañ ñu wax ko ñun daañ ko wax dëgg moo ñu ñor ñun on s'en fout de Sonko mais dëgg la ñu bëgg te ñoom ni ñuy doxalee te teguñu ko ci yoon nañ teg affaire bi ci yoon. waaw pétition parce que kuy wax wax boo xam ne fondewul ah yoon la yoon la ñu teg daan sa kaw moom non lu muy wax fondewul parce que man xam nga ñun ñun ñun du ay analphabète ay intellectuel lañu. Sénégal li muy dund ñi mérité wu ko te Macky Sall moo teg lii Sénégal lii moom injustice la te lii moom vraiment bu ko sénégalais baalul vraiment dina ko coûter cher. loolu nga yaakaar mais fondement problème bi yéen ñëpp kon kenn du ko ci laaj début problème bi au fond maanaam dafa am fond ak forme yaa ngi dégg mais yéen yéen bi. doo ko laal de mais si forme bi rek ngeen ñëw problème yëpp dafa am fu mu débuté lu mu débuté nag loolu la ñu waroon càmbar ba pare laata ñu ko yóbbu Matam waruñu parce que dafa xool ni li ñu def du yoon dëgg rek lay wax donc fii Sénégal boo waxee dëgg ñu jaay la doole mais ba kañ mais lii dafa war a jeex Diaratou ñu rappelé ne que ni rek euh, ay affectation la soixante greffiers la ñu affecté euh, ñu seetlu Omar c'est pas la première fois sax muy am euh, ku ci mel ni Guy Marius moom it jotoon nañ ko affecté mais moom dafa démissionné ñu ngi wax tamit Téliko moom itam lu mel noonu daloon na ko balaa ngay ñëw si problème mu démb Demba nga laal tuuti rek ci mouvement bi nga xamante ne ni am na ci magistrature bi. waaw euh, bu dee mouvement boo xam ne dafa am ci magistrature li faral di am la bu dee dañ ko teg rek ci loo xam ne da daan am amaat saa su ne. Mm. parce que aussi ñi nekk Dakar jamono jëm fi ne am na ñu nekkoon Matam. Mm. loolu bu dee noonu rek lañ ko jaarale lu normal mais bii dama gëm ni jaarul noonu. Mm-hmm. parce que Ngagne Demba Touré dafa ministre de la justice dafa ñëw taxaw wax ay waxam. Mm. ñu xëy xale bi xëy wax. Ngagne Demba Touré bu dee dañ koy reproché lenn rek lañ koy reproché mooy dafa wax li ci texte yi ñee dañoo ñëw di waxe seen bakkan mu ñëw fàttali leen texte yi parce que yoon lépp ay tex la luñ bind la teg ay article mu ñëw fàttali leen article yi ci mbiri corruption de la jeunesse barricade ba nekk këram lépp lu ciy jalgat ci wàllu yoon mun leen da ngeen ko jalgat te yoon lii la wax maanaam ñoom dañ doon wàcc yoon rek mu tegaat leen yoon bu dee faute la def mooy ay kilifa yu taxaw di wàcc yoon mu ñëw tegaat leen ci yoon loolu nag mun naa moo leen naqadi ba ne nañ ko yóbbu maatam parce que pour man bu dee affecté nit da dafa war a def faute professionnelle ci côté liggéeyam mais ci wàllu justice ak greffier ba mu doon ban rëq-rëq la ci def wala ban bàkkaar la ci def bu jar ñu war ko jëlee fii bi ko yóbbu fee parce que affectation warul doon une sanction mais bu demee ba demee ni mu demee parce que dafa automatique dafa wax tey rek suba act bi génn ñu boole ko ci. loolu nag moo dul yoon mais loolu nag na ko sante yàlla ndaxte kilifaam Ousmane Sonko moo ci njëkk a nekk victime nekk ci administration ñu xëy dàq ko tey jii ci Pastef am na ñoo xamul moi je connais des personnes yoo xam ne nu nekkoon nekkatun fa. am na ci ñoo xam ne mënatul avancer dans l' administration maanaam acte d' avancement ko am parce que Pastef la ñu bokk parti la boo xam ne li muy dund ci coono dafa bari dafa mel ne bokk Pastef léegi bàkkaar la. wala bokk Pastef léegi boo ko defee dafa war a am ay daan yu war a tegu ci sa kaw mais ni ba ma dalee dégg ngan Demba Touré ba léegi jàpp naa ni bokk na ci nit yi Pastef yi gën a discipliné moom ak Diomaye Faye parce que ñoom du ñëw di la wax nan dóor diw nan xas diw gars yi dañuy wax parce que dàqu ñu leen jàng da leen mag rek bu ñëwee wax loo xam ne day teg yoon ñoom bu ñëwee tegaat leen ci yoon na leen teg si lii la te pour man dañ Ngagne Demba Touré ba mu dalee wax ba léegi ci àddina loolu lay gars yi dañuy dañuy waaj dañuy génn géew bi mu delloosiwaat leen léegi nag moom ñaara mën a am mooy na leen mu ñal ndax ki bëgg a dee ak ki bëgg a toxu dëkk ak ñoom day jafe te nag danoo toll ak foofu nguur gi nekk sénégalais moom jamono yi di contre nguur gi day metti loolu mais ñoo xam ne juróom-ñaar juróom-benn weer moo leen desee yomb naa mu ñal bu mu démissionné bu mu bàyyi bu mu gedd na dem maatam maatam a ah, Pastef amu fa doole dafa mel ne suñu borom buy defar day mel ni ku yàq na dem am na tur am na bayre na dem yee waa maatam gëm gëmloo leen ni Pastef moo fi ne jeex na. Mm, d'accord sooy bu euh, ah, indeeti nga koo xam ni depuis euh, mu génnoon fi sorteem bu ba léegi mi ngi def ay euh, kii yu bare bare ay bruit ci Sénégal depuis mu waxee waxam jooju ci yàlla la ñu war a gëm ko projet bi am na leen lu ci nekk. soo koy déglu nag da ngay déglu borom xam-xam mais da ngay déglu jeune et puis déglu ko bëgg réew mi ak ku am xam-xam. Ngañ nag fi mu wuute ak ñu bari ñi may gis ci penc mi mooy xale la boo xam ne dafa jàng ci ñaari wàll yëpp mënoo ko nax ci diine ji munoo ko nax ci wàllum tubaab wàllum tubaab mm. sama xam-xam soriwu ci mais wàllu diine ji nga xam ne am na lu ma ci jàng aslëf su ma ci déggee muy wax am na imaam buy toog ca jàkk jee jiite sax ngañ dem baa ko raw loolu nag ndimbalu yàlla la bu muy nettali jaar-jaaram fi mu jaar ci wàllu arab beeg xam-xam beeg ni jàngee yombul nit yóbbu na daaraam bëgg mu mel ni yombul loolu yàllaa koy maye waaye damay d'accord ak Omar li wax fi sànq. bu dee réew mi la bëggoon liggéeyal fi mu nekk ci fonction bi mu nekk. même bu ñu ko yóbboon Matam Tamba fu ñu ko mën a yóbbu na dem. parce que Sénégal xam-xamam la soxla soxla wuñ présence am Dakar wala fële ak fële xam-xamam bi mu yor te Sénégal euh, di ko di ko fay mu nekk fonction fenn loolu lañ soxla. fu ñu ko mën a yóbbu Sénégal na dem. mais su bañee rek léegi am na fu muy dugal xel yi. mooy kon léegi xale bi lan lay xeex. est-ce dafa bëgg a toog ci nooyaay bi est-ce que dafa bëgg est-ce dafa bëgg fu ñu ko yóbbu na dem parce que fu mu dem jàpp naa ne war na faa mën a liggéeyal réewam mm-hmm. Mm-hmm. d'accord alaaji mu mel ni lu mu sentiroon ndax parce que bi ñuy def seen conférence de presse sax mi ngi ko fay junj di wax ci mbirum affectation yi ñu xëy rek joxe dogal bi ci vendredi bi waaw macha allah xam nga boo seetee Matam mm. euh, yàlla dafa def mu nekk gox boo xam ni euh, président Macky Sall da koy gañe bu baax a baax nga gis ni ñuy voteelee euh, président ci élection bu jotee maatam nag waruñu woon taxawaay bu mel noonu bu fekkente ni bi ab gox mi ngi la koy taxawoo war naa gis boppam ci nguur gi ba buñ fay yóbbu nit nit ki du jàpp ne dañ koy sanctionné ndekete bërëbu sanctionné kaay la ak li ñuy jàppale nguur yëpp ndekete moom nguur gi moom ci ku mu am ku ko metti danaa naa ko yóbbu maatam na waa maatam sonnee mu sonnee ko loolu nag njuumte la parce que warut a nekk loo xamante ni eh, dañuy jël maatam di ko xoolee ne diw affecté nañ ko maatam rek mi ngi ci xoox sanctionné nañ ko loolu baaxul loolu dafay am loo xamante ni bi defe naa ni nit ki bu gënee ci yow da nga war tamit gën ci moom parce que loolu c'est très important euh, te loolu sax day defar dëkk ay dëkk yoo xam ne gëm nañ say kii yooyu nga taxawu leen ba nit ñi am envie di dem maatam tey ji dañu ba waxoon ne bu ñu waxoon ne Ngagne Demba Touré envoyé nañ ko maatam gars yi ñee ko te ne non macha allah Matam ah non Matam développé na parce que maatam nag vraiment dañ ko mérité c'est parce que président nangam la fa am def nañ fa lii def nañ fa lii fa lii ba nga xam ni nit ñi dañuy am envie waaye léegi nag bu fekkee ne bi yow fa la gën a jàppale buñ ñee léegi nañ sanctionné ni nañ ko yóbbu foofu loolu erreur la tey tamit da ngay euh, vexé ña nga xam ne ñoo fa dëkk tey jii tey jii avant président Macky Sall di ñëw sax ay Ablaye Wade ak ñëpp mm. dañu waroon a defar dëkk yooyu bu baax a baax waaw dañu waroon a defar dëkk yooyu bu baax a baax a baax ba nga xamante ne bi dëkk yooyu ku ñu fa yóbbu day bëgg loolu moo lay wan ne la rek euh, suñu nguur yi daal dinay des léegi nag non dama ne ñu jàpp ni sanction la waaw dama ne ñu jàpp bu ñu jàppee ni sanction ba tax ñu ne yóbbu nañ ko maatam mm. loolu moom erreur la waaw loolu moom erreur léegi nag nit ñi moom leen di affecté mënoo wax ne damay bàyyi Ngagne Demba Touré fii c'est parce que bu ma ko yóbboo maatam dañu naan politique da cee rax ba tax doo ko yóbbu waaye waroo koo yóbbu tamit ndax politique da cee rax moo tax ñuy wax ni politique nañ ko moytoo dugal ci mbir yi dafay yàq lu bari tey mën naa xool ne bu mii de moo gën ca kaw lax mm. waaye ma ne bu non bu ma ko yóbboo dañ naan non politique bi ni mu demee la bu boobaa yaa mi ngi yàqu parce que da jàpp ni kii mooy ka fa gën kon donc bu fekkente ne bi da yóbbu nit da ko war a yóbbu ci tranquille mais léegi dëkk bi lépp politique yaa ngi dégg mm-hmm. lépp politique tey jii am na ñoo xamante ni bii nekkuñu sax ci dëgg waaye kenn ñemewu leen a dàq mm-hmm. parce que boo leen dàqee ñu ne politique mm-hmm. am na ñoo xamante ni bii tey mën nañu utiliser loolu ba tey mën na nguur mën na am dëgg par yenn saa yi ci yenn yi de mais dëgg googu mën nit ñi mënatuñ koo gëm tey jii ni ñu ko defee façon defin bi ngañ Demba ture wax tey ñu affecté ko suba c'est que dafa gaaw waa mais moom waxoon na ko njortoon na ni dina dina dina bokk si ñi ñuy affecté. waaw njortoon na ko. Ah. le fait que mu njortoon ko. Hmm. kon dafa mel ni am na lu mu yëgoon xam nga pareen saay gars yi nag dañoo am ay xarit fu ne. Hmm. léeg-léeg léeg-léeg nga nekk ci bërëb bi nii. ku nekk yaa ngi dégg nga dégg lu ma léeg nga nekk ci bërëb bi nii. d'accord ñu ne ma jigéen de war nañ ko jox poste sangam ma jigéen sax mën na koo bañ a yëg. mais mbir bi ñëw ba da toq ci yow te fekk ne kenn waxagula ko loolu day am pareen saa yu ne bëgg a sànni de mën na ko njoot mën na ko yëg yaa ngi de mais li am solo mais li am solo mooy mm, mm. Matam Tamba ak fu mën a doon senegal la nit ki moom fu ñu la yóbbu mm. demal liggéey sa liggéey Ngagne Demba Touré man jàpp naa ni ak réew mi fi toll nii nga xam ni nit day nekk ba Chine yor portable am bii lu xew ci dëkk bi mu wax ay waxam mu siiw ci dëkk bi ba mel ni mi ngi fii ñi gën a jaaxal nit ñi ña nga bitim réew di wax ci seeni portable mu siiw lool kon defe naa ni fi mu toll nii am na loo xam ne boo ko defee tamit pour sanctionner nit ki pour dootul wax nit ki kenn mënu koo teree wax te fu mu nekk mën naa yëg li xew donc daal euh, pour man gisuma ci benn ngaañ nañ bañ jëf rek di wax ne dëkk sàngam bu ñu la bëggee sanctionné fa lañ lay yóbbu dëkk sàngam bu ñu la bëggee sanctionné fa lañ lay yóbbu waa dëkk boobu dañuy am lu leen naqari ci loolu ah, te loolu warta am ci réew mi waaw moom de comme <laughs> administration la nekk moom defe naa ni affectation lu ñu miin la euh, lu ñu miin la ci ay jàngalekat ak ay militaire ak yooyu donc sanction du sanction ñoom ñoo xam parce que décision bi li ma ko déggee nii gaaw na bu dee mook 60 mook 59 personnes la donc man damay ragal est-ce que du lu ñu préparé woon bu yàgg wala je sais pas loolu ñoom ñoo xam mais daal ñu jàpp ni Matam Kédougou Tamba ak fu mu mënti nekk ay doomi réew mi ñoo fa nekk ay sénégalais ñoo fa nekk di fa dund maa ngi gis benn élément waa waa maatam yi naan ñu ngi koy xaar logement sax du ko fay. dinañ ko ko jëlal dinañ ko kii wax yi nga xamante ne moom lañ ko nar a gunge ni na ñëw ak jàmm dinañ ko xaw ma lan am na yu bari yu nu wax ni dañ ko koy defal man daal li ma bëgg wax rek mooy mhm. dañ ko affecté na dem mu liggéey liggéeyam convenablement point mhm. eh, noonu waxtu bi jot na <laughs> mi ngi noonu ajaratu li lañ leen indiloon tey ci actualité du jour jox leen di daje suba jàmm incha allah. incha allah merci beaucoup ma jigéen Diop Dieng Sall.